Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy topp saa su nekk tey nag dañu fa yéene daal di dikkaat ci li nga xam ne moo di ne mi ngi lëmbee réew mi di Sénégal ci ñetti yoo xam ne rek mën nañu fi mu toll nii ñu baree baree bari ñu ngi ko teg ci taabul ji di ci wax ca lañ fa yéene daal di ñëw gannaaw gi nag di la jaajëfal bu baax a baax ci topp gi nga xam ne rek yaa ngi ñu koy topp yow mi nga xam ne rek yaa ñuy suivre saa su nekk sa mbégte di suñu bànneex. ni ngeen bëggee ñu ko koy defee cant ak ngërëm kon ñeel na leen yéen ñi nga xam ne rek yéenay suivre partout TV dañuy daal di dellu si rek gannaaw benn l' boo xam ne fa lañ koy doore sax ca diwaanu Saint-Louis nekk accident bu méttee métti ci benn borom moto jakartamaan boo xam ne rek benn oto moo ko daal di fël mu ñàkk bakkanam ci saa si te mën nañu loole sax euh, kañ ci intervenir du kenn ku dul ki nga xam ne rek moom moo yor lépp lu dellu ci wàllu dem beeg dikk bi fii ci biir réew mi te mu nekk nag ay jafe-jafe yoo xam ne ñu bari ñu ngi koy kaas ci jamono bii loolee nag mën nañu jur jëye ba tax borom jakartaman boobee daal di ñàkk bakkanam ci saa si ci loo xam ne sax amul benn négociation gannaaw gi nag dañuy daal dem rek ci mbirum actual people saa su nekk rek eh, ci ni nga xam noonu lañ koy eh, defee bi yoon rek dañuy dikkaat ci coow li nga xam ne moom moo dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di Bass ak ki nga xam ne rek moom moo di Fatou Ndiaye ndaxte boobu ba tey ña ngay lam-laamee li nga xam ne moom moo di seen mariage ba tax ki nga xam ne moo di Fatou Ndiaye moom jot naa solo ba def li nga xam ne rek moom moo di ay postam xam leen kat takk nañ ko wante ku ko takk nag du kenn kudul Moussé Diagne xel dem ci ki nga xam ne rek moom moo di Bass Thioung mbokk internet yi boobu ba tey nag ñi ngi doon remarqué que ki nga xam ne moom moo di Bass Thioung mësu see yey yàbbi moom moom nga xam ne nag moom moo di Bass Thioung xel daal di ñaaw lool ndaxte moom est ko moo takk walla takkul waaye nag ñu am si ay nouvelle que moom mii di Fatou Ndiaye ba ñu xoolee ci ay pasam gis nañ que ne mi ngi wax ne artiste bi moo ko takk wante nag waxul li nga xam ne rek moom moo di tur ñu remarqué que kat kenn ci famille Bass yooyu gisuñu mu publier lii di mariage bi wante nag mbokki ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di Fatou Ndiaye ña ngay publier li nga xam ne moom moo di mariage bi ñi naan shooting la ñi naan di shooting mu nekk nag lu doy war loo xam ne remarqué nañ ko que ne Fatou Ndiaye daal dina koy def di ab poste nekk ci avion di dem naan maa ngi dem sama Linguère seeti ki nga xam ne moom moo di sama jëkkër ñu bari ne direction Espagne la jëm te nag ku xam bas xam ne ma nga foofee ca Espagne gannaaw ba mu fa joué spectacle bu am solo boo xam ne gis nañ ko gis fermé àdduna bépp teg ci bët du lu ñuy laam-laamee moom moomee di Fatou Ndiaye nag ma ngay wax lekk ne ma ngay dem direction Barcelone. comme fay fekk nag ndax Bass Thioung la waaw wala déet lu ci manti am dinañ am li nga xam moom moo di ay leeral en tout cas moom Fane Ndiaye ma ñuy wan que ne jël na volam te tamit ngay dem ca Espagne te bu ñu sukkandikoo ci yenn ti site internet yi ña ñuy xamal ne moom mii di Bass ba muy joué foofu nga xam ne sa Espagne ba pare dafa daal di toog nag lan moo waral nag mu toog foofe di laaj boo xam ne rek moom lañ daal di posé en tout cas lu ci manti am di xamle que ne kii di Fane Ndiaye te mu waxoon que ne Moussa Diagne moo ko takk ñëpp di laam-laame ba xam Bas na waaw wala déet moom moomee ma nga jubale fa nga xam ne moom moo di Espagne. am na sax ñu si yokk que ne kii di Fat Ndiaye dafay daal di dem defi li nga xam moom moo di lu de mielam moom ak jëkkëram ndax Bas na waaw wala déet lu ci mënti am ci ay leeral dinañ ci daal di dikkaat en tout cas liñ ci mën a jàpp mooy Fat Ndiaye ci ay postam loolu la ñu xamal. gëstuwaat nag bu baax a baax ngir mën a xam lan lay wuti foofale ca diwaanu Espagne ba xam day rejoindre ki nga xam moom moo di jëkkëram euh, ci biir loolu nag la ñuy daal di ñëwee rek ci beneen mbir boo xam ne mën nañ ne ñu baree baree bari ñu ngi ci yéey yàbbi muy problème ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye ak ki nga xam ne moo di Sa mën nañu seen diggante ñoom ñaar coow bari na si ki nga xam ne moom di Sa Thiès gannaaw ba mu daal day génn ci biir kër ga ñi si baree bari dafa am ak problème ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye coow loolee nag ku nekk yéen ci yàbbi wala bokk ñu baree bëri yéen ci yàbbi en tout cas ñenn nag ci ay xarit yi ki nga xam ne moom moo di Sa ñoom génn nañ di xam ne que ne bëñ ak lamiñ ñoo dëkk kon nag du tee léeg-léeg rek bëñ daal di koy yëy wante lu ci mënti xew danañ àndaat doxal li nga xam ne moom moo di seen liggéey ci seeni kàddu nag ci lañ déggee que ne kon problème am na wante nag nañ ko foogee mën nañ demewul noonu. ndaxte moom mii di Sa ba muy génn toog nag ki nga xam ne moom moo di yaayam di waaye juróom bu jigéen waxtaan ak moom expliqué ko li nga xam ne rek moom moo waral ab génnam wante kat nekkul que ne ay problème yoo xam ne yu 100 pour cent la que ne moom moo ko ko teg ba tax mu daal di génn këram ba daal di ut sax li nga xam ne moom moo di otoom ci ay dispositif am ñu gis sax kii di Balla moom it génnoon doon xamle que ne bu fekkente ne dafa am leneen lu muy def mën nañu dana ko def keneen ku bokkut ak Sa Thiès ndaxte moom gis nañ que ne ci kër famille lañ nekk te tamit rakk la ko jàppe joo xam ne tout le temps mi ngi koy dimbali di ko jàppale. te lépp loo xam ne nag mu ngi siy dugg ñun xam nañ que ne njaboot moo ñu sonal te moom tamit mi ngi def la tout di ci xar tànk tubayam loolee sax mën nañu ñii di seeni xarit ñoom ñaar moo xam kii di Balla Gaye wala kii di Sa ñoom yëkkati nañ ay kàddu sax indi ay seede ku ci nekk ci ñoom ndaxte tamit. ñoo bokk seen benn teen te li olof Njaay di wax ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj ba tax nag buñ xëyee un bon jour ñu ne génn na rek buñ jàpp que ne ay problème moo tax ñu génn comme ni nga xam ne rek noonu la ko kenn nag ci xariti Sa Thiès xam ne que ni Balla wala boog Sa bi muy génn mat na weer coow lii di soog a am ndaxte ñu baari bi coow li amee lañuy ñuy soog a xam que ne Sa génn na moo tax taxoon nag ñu jàpp que ne génn li kon coow lii moom moo ko waral alors que mbir mi demeewul noonu am na leneen loo xam ne tey moom moo jiitu woon dafa fekk que ne ñaar ñoo xam ne dañuy ànd te yàggam yàggam tamit dañuy tàqalikoo tàqalikoo ga na rafet moo taxit ku nekk loolu ngay ñaan ndaxte ku yar sa doom ba mu màgg boo sañoon fa nga yem dina la double di dem kon nag bu ñu demee ba gis kii di Sa Thiès génn ber daaraam kenn du jàpp que ne ay jafe-jafe la am te nag sénégalais yi problème boobu dañ koo am que ne képp ku génn si kër rek dafa am moo tax nga génn naam man nañ am na ci cas yoo xam ne noonu la demee mais nag bari na si tamit ay cas yoo xam ne demeewul noonu kon nag seen diggante ñoom ñaar laaj na toog laaj na tamit taxaw seetlu ñu waxtaan ci seen biir en tout cas li génne problème bi tamit nekk loo xam ne lu wërte woon a mën a nekk la ndaxte dafa am loo xam ne ci làmb ji la mais nag dafa am loo xam ne mbirum famille la mënoon naa bañ a génn ba yegg si fii ba ay mbokki internet ñu si di ci yëy yàbbi te loolee gis nañ que ne jaaduwul benn benn benn benn yoon en tant que ñoo xam ne tey ay leader lañ ñoo xam ne tey am nañ ay soppe fii ci biir réew mi di senegal waruñu woon a mën a yegsi ba ay internautes di dox ci seen diggante ñu naan dañoo xuloo dañoo xiiroo dañoo ŋaayoo ci mbir moo xam ne rek mbir mu ñàkk fulla la wala sax lu ñàkk fayda la ndaxte tamit ñoom seen capacité ëpp na loolu bu baax a baax a baax feneen fi nga xam ne nag fa lañ daal di jëm rek jamono bi ñu toll nii gannaaw quarantième ki nga xam ne rek moom moo di Aziz Dabala jot nañoo am sax ay révélation ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay sëram ak ay frère ñoom ña ngay wax naka la dabalaa Dabala daan dundee foofale ci biir kër gi mu nekk lu nga xam ne lu am solo la moom sax mi nga xam ne rek moo di sëram mu ngi doon xamle que ne dafa gént kii di Aziz dabalaa naan ko diw moom moo ma rey wante nag moom nee na diw moomee ka daba la wax nekk na lu doy loo xam ne moom mësu ko woon a imaginer maanaam gëmu ko woon daal kon nag tur boobee daal jaaxal na ko lool lool sax di ak gént goo xam ne am na rakkam ji daal di koy ne ci quarantième jour bi ndaxte nag bu ñu nemmi ko dañu gis que ni li nga xam ne rek moom moo xew nekkul loo xam ne rek lu garaaw la Euh, wala bokk ki nga xam ne rek moom mooy sëram bi li mu wax nekk na loo xam ne tey lu garaaw la ci révélation bi nga xam ne tey def na ko ci politique la ñuy daal di dugg moom Bougane Gueye Dany mu ngi doon xamle que ne li taxoon ñu téye ko gannaaw mu demee ci kanamu procureur di xamle que ne moom mii képp koo xam ne rek wax na la li jot a xew du dëgg goo xam ne tey lu am la wala bokk ñi koy nettali ñu si bari xamuñu lu xew ndaxte moom moo mën a nettali li xew waaw. ndaxte diffamation lañ koy toppee nee na moom tamit mi nga xam ne moo di Bougane def na li nga xam ne rek moom moo di injure publique ci biir loolu nag ma ngay nettali moom Bougane na nga xam ne noonu la fa nekkee woon beral cant ak gërëm ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkoon ci wetam ki nga xam ne rek moom moo di Pape Djibril Fall bokk na sa nga xam ne bàyyi na ay itam yëpp ñëwoon ci moom pour rek soutenir ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne rek daal dina leen di jot a kon nag moom Bougane gërëm na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon dimbali gannaaw ni ki démb bi mu amee liberté rek ñu daal di koy bàyyi ci ay jafe-jafe yoo xam ne duggoon na si te nag ñaw naroon na desu xam leen ndax naroon naa ñaaw lool ci côté kon nag di leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi safoo gi ak faale gi seen chaîne pax Partout TV ngeen di woy di abonné saa su nekk